am complexe tan yi yep ñu ngi ci bëgg a dellu cër bi ci loxo yàlla mu teleen tëj ndax reey rek reey rëy ñu reey waaye wa in min shayin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu loolu la wax mu mel ni kon anasir yi al al arbaa man bi may dem ci prison bi dans le document j'ai essayé de revoir ça mais dama mujj daw parce que nous am conscience waaw te dafa am ma ci me dal dama mas di tag ben dex xam nga rek ne suis ci dugg may tag ben dex Malik Si si jinge mo bind xasida ba ma tag dex gi ba ko yaru mais mukk dañu mujj ni ma bu géej gi yaru woon comme dex dex du am bu géej yaru woon comme dex dex du am waaw ma xam ni dama juum waaw moo tax fan yooyu yëpp dama ma ci géej gi di sangu ragal mu wan na ma